ci man dara danaa lu may loo xam ne yàlla moo ko def sa kaw mbokk yi buñ naxante jàppale seen diine jàppale seen diine nañ cee dina ñu bu baax bon yooyu ci wax na xale bi ne ko na xam ne na xam ne sooy ut ndimbal ut ci yàlla waaye nga xam ne àddina bi yëpp buñ doon ne dañ lay lor kenn mënu laa lor mbokk lu mooy loo xam ne yàlla moo ko bind si yow xaalis bi ñëwaat na beneen beneen façon ci ci muslim bale Buxaari bi muslim mu ne ihfazillaaha tajidhu amaamak na nga garde yàlla foo toll yàlla sa boot di la xool nii taarraf ilallahi fi raqaa'i ya'rifuka fi sidda bu neexatee bu neexatee nga xam yàlla bu neexee nga xam yàlla mooy nga def lu baax masalan soo amee wërsëg bu rëy nga dimbale ci nga tane waaye boo amee wërsëg rek nga dem pati pati keroog bu méttee nga ñaan yàlla loo faale yonent bi nee na su su neexee nga am dimbalal ñi nga tanee ndax bu naqaree boo ñaanee yàlla yàlla dimbale la waaye bu neexee nga ne yow léegi tey neex na xaaral ma dem bit dem pati ji nga gis kër boo xam ne kër pour kër taal seen moto njaboot gi dugg ci moto bi dem nañ ca bij ba def laal pati bu méttee na nga ne allahuma allahuma allahuma yàlla du la faale yàlla du la faale mbokk ñu bàyyi si xel baax bon bu méttee nga nga bàyyi si xel et eh, ci bàyyi ko ba léegi de bu ne ko ah waaw la anna maa axtaaka lam yakul yu maa axtaaka lam yakul yu siiba bàyyi sa xel ne lépp loo ko def la mooy warul laa dal lépp loo xam ne dafa ñëw war laa dal ca mun tax mu dal la waaye li nga xam warta dal ca kaw ca mun tax mu dal la bon waalam anna ma axtaaka lam yakun li yaati min baadi ismu ahmad waxoon naa ne am na benn yonent bi ñëw turam mu tudd ahmad bu ñëwee lu leen fekk bàyyi leen ko ngeen ànd ak moom sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñoo ko topp tey ñi ñu ko topp tey tappalee kese da jël aaya téeréem bi lu la neex nga bàyyi ko fa lu la naqari nga bàyyi ko fa moo tax ñu di wax ñu la wax ne Old Testament ak New Testament alxu ya wax am na lu ees lu màgge xam buñ naxante buñ naxante waxi nga ne bii mooy bu njëkk bi bii mooy bu mujjee bi wala bon nga ne eh, alxuraan yi bàyyi alaaji Tuure bi alxuraan yi ci yaamaa injil Luuxa injil Matta xam ngeen am na injil Mata am na injil Luuxa am na injil Yohaana yooyu yëpp ay nit lañ ñoo xam ne boroom xam-xam lañ ci ñoom ñoom bin bàyyi ba bañ binda ñoo ko moom loolu xam-xam alxuraan mooy téere boo xam ne yàlla moo ko bu yàgg mu ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafisuun man yàlla ma wàcc fi alxuraan damaa koy gàtt yaa ngi nii yaa ngi nii yaa nii jugee ko fi li nga jàngal xul wala waaye bi nga jàngal nii fii demal màkka di séem xul wala boo ko yokkee xale bu ndaw la hey yaa ngi yokk boo ko wàññee yaa ngi ko wàññ lu tax yàlla ko gàtt waaye kii naan la injil mata injil luuxa injil eh, na mata eh, eh, yooyu ay wax la yoo xam ne taxawut bon mbokk yi ñu bàyyi si xel baax yéen bi nee na xale moom booy ñaan ñaanal yàlla booy ut ko dimbali dimbali ut ci yàlla utal yàlla ndimbal tax waalam na nga xam ne annal ummata àddina bi yëpp buñ dajee ko dimbale la mun la defal lu moy ak li yàlla bind ni moom nga war nañ bàyyi xel si loolu àddina bi yëpp bu ñu bu woon ne yow dañ lay defal nangam mun la defal loo xam ne yàlla dogal daf ko war waaye bu ñu la bëggee loolu tamit dara dara xaaral ma waxal la baat yi nga bàyyi ko sa xel ba tey suñ doom yi suñ doom yi na taaj sa doom sa biir néeg nga waxal la lu ko war ni war a def ak lu def ñu xale bi nee na sallallahu laa laa diina liman la xayaa aloo ku amul kersa amuloo diine koo xamoo kersa amuloo diine te kersa bariwut kersa bariwut lu neex waaye def ci mbedd mi fii boo génnee wax benn xale bu jigéen nangama nangam mu la bu ma gisee xale yaa ya, xale yaa ma jub xale yaa yaa ma jub ma wax ne ku nekk da téye doomu mu waxal ko ni war a def ak ni war a bàyyi Mouhamed mu wax doom ci xale bi ne ko yaa gulaam inni uallimuka kalimaat kaay ma waxal la baat yii mooy lan ihfasillaha yahfasu na nga bàyyi sa xel foo toll nga xam ne yàlla mu lay xool foo nekk xamal yàlla ngay gis dafay sax li nga war a def ak woo sa def xoolal loo xam ne danga ko war a def ak loo xam ne loo koo def foo toll xamal ne yàlla ngay xool ihfasillah te gisu am jaaxul bàyyi sa xel si yàlla foo toll na nga xam ne yàlla mu sa boor soriwul la yàlla mu ne man yàlla maa da a jege buumi sa xol bi a jege ana yàlla jege na la yàlla mu ne sa buumi xol bi maa la a jege bon su ngeen ci waxee ne sa jëf amaana boo ko boo ko yëgee nga xam ne yàlla musa boor nga bàyyi sa xel baax bokk yi yonent bi nee na ko wax xale ba léegi isaa sa alta fasalillah booy ñaan dara ñaan ko yàlla ki ngay ñaan amul dara koo fi yaakaar yàlla yaakaar koo fi yaakaar yàlla yaakaar bon fu teekul jaamu yàlla yonent yàlla muhammad wax na abu hurayra ne ko deel julli nga wax sa jabar ñuy julli yàlla may la wërsëg allahu akbar jaamu yàlla ku jaamul yàlla da nga perte ku jaamul yàlla da nga perte waaye dañu da xam ne sunu sang bi mooy suñu royu waay bi di doomi abdullah waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla waaye ci yàlla la moo waxoon ne koo xam ne da gis ne Muhammad nii doomi Abdoulaye dong la doomi Anas dong la yow doo dugg doo dugg àjjana waaye da ngay ne Muhammad nii doomi Abdoulaye la ak Aminata waaye rasulullahi la yonent yàlla la sallallahu alayhi wa sallam la ne la amoon na ay baayam yu ndaw yoo xam ne dëkk nag moom ci benn kër ñu nga safarale xam nañ ko de xàmmee nañ ko de waaye defuñ ne yonent la moo tax dañuy dem safara gëmuñ ko gis nga nit ku nekk da nga koy téye maqaama nit ku nekk da nga koy téye fi mu toog Muhammad nit la comme ñun waaye borom xam-xam mu ne Muhammadun basarun laa kal basari bal huwa ka yaquut baynal xajar Sëriñ Bamba sunu maam mu ne Muhammad mi de nit la comme nit ñi waaye nit la waaye du comme nit ñi wala dégg nga ma Muhammadun basaru Muhammad nit la. laakal basari waaye du comme nit mu ngi mel nii bal huwa kal yaxuut baynal xajari mooy nga jël góol doo ko ay biir ay xeer sallallahu alayhi wa sallam ci biir nit ñi mooy nga jël bi ngeen xam ko doo ko ci ay biir xeer yëpp xeer la de waaye bokku mooy kooku mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon boo gëmee boo gëmee ne Muhammad yàllaa koy yónni yow li da ngeen àjjana waaye bu fekkee Muhammad da nga ne gëm rek Muhammad doomi doomi Abdullah rek la du dara du sotti mbokk yi ñu ngi wax ne suñu xutba gi tey ñu ngi ko teg ci ne al mulku bi yadillaahi nguur mu ngi ci loxo yàlla amul kenn ku amee al mulku bi yadillah yàlla mooy jox nguur ko neex nañ ci bàyyi xel tabagu llahu aleyk rufiat al aqlaamu wa jaffati suhuf rufiat al aqlaam wa jaffati suhuf wa fi riwaaya احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أسى ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج مع الكرب وقال سبحانه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك أيها المسلمون فالمسلم عليه أن يكون غنيا بما أتاه الله سبحانه لأن الأرزاق محدد عليه لا أحد يمنعه ولا أحد يوصله إليه لأنه مقدر له وعليه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القناعة كنز لا ينفد القناعة كنز لا ينفد وقال العلماء احفظ الله تجده تجاهك أي أن من حفظ الله في الحدود ورعاه ورعى حقوقه فإن الله معه في كل أحواله يحوطه وينصره ويحفظه ويوقفه ويسدده قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأتوب إليه إنه هو الرحيم الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على خير البشر ومعلم الدهر سيد الأولين والآخرين رسول العدل والإنسانية سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أيها المسلمون السلام على من اتبع الهدى بعد فإن موضوعنا اليوم إن شاء الله هو الملك بيد الله أقول بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلماتي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا xad katabahu llahu laka ala an